voilà salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ñu ngi fii nga xam tey mooy fi ñuy déposé passeport yi te bis bu mujj bi nga xam ne tey fi lañ nekk incha allahu taala ñu am fi sëñ Moustapha Sène mi nga xamante ne bi ki nii moom moo jiitee comité organisation bi yàlla dogoon nag Moustapha nga amoon ngant muy nga amoon benn voyage bu ndaw boo xam ne moom nga defoon tey yàlla dogoon nga ñëw fi tey seet si liggéey bi ñu lay wax primero naka voyage bi. waaw maaleykum salaam wa rahmatulah ñu ngi nuyu ñëpp euh, di sant yàlla bu baax gannaaw bu ñu demee ci jàmm ñëwaat ci jàmm. Euh, di sant yàlla ndax wax dëgg neex yàlla voyage bi tout est bien passé jàng nañ ci lu bëri yokk nañ ci suñu xam-xam donc sant yàlla bu baax aussi gis nañ ne retourné nañ te gis nañ ne aussi liñ fi bàyyi woon eh, tegoon ko ci ay loxo yu leer aussi mu ngi avancé donc euh, sant yàlla bu baax. jërëjëf mu mel ni xëy na ñëw nga teew ci liggéey bi nan nga gisee organisation bi nga ñibbisee yow nan nga gisee organisation bi nga ñëwee. waaw. Euh, xam nga lépp loo gis ci àdduna organisé wu def cee am solo te bu fekkee ne am na loo xam ne moom lay ñaan ci sama àdduna mooy euh, ci lépp lu ñuy nekk rek ñu mën di jàngal ay ndaw maanaam suñuy moroom suñuy nawle ak suñuy rakk ngir bu ëllëgee eh, ñu ciy mën ci jàpp mais aussi aussi ñu mën ciy àddu c'est-à-dire ñu mën koy continuer donc yaakaar naa ni ñu organise aussi bi yoon li ci ëpp solo mooy collaboration yi nga xamante ne ñëpp ñi nga xamante moom la ñu ñaanoon seen volonté coom ñoom ñu présenté wu euh, respecté nañ volonté boobu ñu organiser wu ci benn groupe boo xam ne ñu ngi ci doon waxtaan lépp loo xamante moom lañ ci waroon def maanaam ñu préparer ko dès le début Euh, yaakaar naa ne réussite bu organisation bi am rek euh, préparation boobu moo ko indi te loolu effort kenn ku nekk euh, mooy tax ñu yegg ci lool donc gis naa ne kenn ku nekk ci yéen ñi nga xamante ne yéen a nekk ci organisation bi yaa ngi def effort bu am solo boo xamante ne yaakaar naa ne bu ko deful woon mbir mi du yegg si fii beneen effort bi nga xamante ne moom lañ ci bëgg a dolli mooy effortu sénégalais yi aussi ndax groupe cinq six personnes ak lu ñu organisé wu organisé wu bu fekkee ne message bi aussi eggut ci yeneen sénégalais ba ñu comprendre ne lii ñoom ñoo tax ñu jóg eh, day métti ñu organiser donc organisation bi chapeau mais communauté bi aussi chapeau ci seen côté ndax aussi bu ñu organiser wul rek kenn mënu leen organiser moo tax macha allah li ma fi fekk gis naa ne mbir maa ngi avancé eh, lépp loo xamante ne aussi lu ci am faay la ndax nit motut kenn motut après dinañ réunir waat jéem a xool loolu li nga xamante ne mooy doxut woon ñu mën ko corriger la prochaine fois euh, xam naa ne bii mën na génn organisation yi jàll yëpp waaye àdduna loolu la bu dara xewee dangay xool la nga xamante ne moo ca jaarut woon yoon wala la ca jubut woon nga jàng ci pour corriger ko la prochaine fois bii lu mu rafet rafet dañuy ñaan yàlla bay gën a ñëw bay ñëw dàq ko gën koo rafet moo tax daal macha allah. jërëjëf kàddu yi am na solo xam naa damay jël si ci benn question rek mu mel ni grand Aba Goudiaye ngi doon ñëw donte peut être temps permettre ko mais parfois dina fi bu leen tey mu mel ni organisation dañ ko cambier dañu changé dañu jël képp koo xamante ni jigéen nga ñëwee doo rang premier âge doo rang xale yi doo rang nga xam ne personnes pour DIA léegi dañuy dem ba personnes pour DIA la nga gisee loolu yow loolu yaa ngi koy rafetlu comme li nga xam ne gars yi organisé organisé woon nañu noonu bu jigéen ñi xale yi duñu rang paa en même temps ñi nga xam ne ñooy ay xef yi nekk dëkk bi ñoom nee nañu rafetlu dañ organisation bi tam mosuñoo gis lu mel noonu yow loolu noo waaw euh, mooy li ma la doon wax euh, sànq maanaam jàng ci ay erreur yu njëkk maanaam pour corriger ko dafa am solo te ci loolu lañ taxaw te lu am solo la macha allah bi ngeen ci taxawee te comprendre ko te ñëpp ànd ci ak Euh, quant à ñi nga xamante ñooy rang ak ñi dul ran loolu ça dépend à chaque fois ci façon société bi nga xamante ne moom nga jàkkaarloo xale bu ndaw maanaam à chaque fois day am priorité ndax day am ay besoins yoo xam ne mënu koo exprimer c'est-à-dire mënu koo wax wala mënu maanaam amul temps bi mag yi am mag bi nga xamante ne dafa am yenn âge aussi kenn waru koo ranloo ci yenn béréb yi donc saa yoon ko mënee may avantage dañ ko ko war a may mbirub jigéen yi aussi volonté la rek ngeen def ko te muy lu am solo eh, te ñu leen ci félicité ndax aussi c'est vrai que góor ak jigéen tey dañoo ne ñun ñëpp a yem donc ku jigéen ki bu fekkee ne du xale bu ndaw du mag te nekkul ëmb maanaam wala feebarut aussi mënoon naraan ni ñëpp mais buñ demee ba yërmande tax ñu koy def yaakaar naa lool suñu culture may nañu ko te def ko lu am solo lu rafet la waaye boo leen ko defut woon aussi du doon ab ab wala du doon lu kii ñaaw mais bi ngeen ko xalaatee ba def ko rafetlu ko rek moo ci war donc macha allah ñu ngi leen ciy félicité. waaw mu mel ni daf mel ne tey yaakaar naa ni am nañ ci lu toll ak kasi 200 personnes yoo xam ne ñu ngi ci biti suma ma jóomul te ñu ngi doon jël pour de yaa maanaam pour limiter 150 personnes 150 personnes yooyu dinañ ko dolli 50 personnes pour réserve. suñu quota bi permettre ak logar bi ñu nekk dinañ ko dolli vingt personnes tey jëlagul nañ kasi cent vingt personnes te li ñuy xaar ci biti lu mu katta katta war naa mat kasi ochenta wala menos nga yaakaar ni est-ce que tey ak temps fi mu toll ak logar bi ñu nekk suñ jëlul ñëpp loolu lan la mën a jur. waaw euh, <coughs> dafa am loo xam ne réalité la bu ñu sañoon mission bi buy ñëw Argentine ñëw pour quinze jours euh, minimum. su ko defee aussi ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw ñu mën leen a respecter aussi seen àq ndax ay liggéeykat lañu euh, bépp liggéeykat boo sañoon boo xëyee xëy ci benn heure am heure boo wàcc am temps boo noppaleeku ndax le lendemain da nga war a commencer waat da nga war a nekk bokk boo xamante ne bu fresh la. ndax sa bopp boo ko noppalut doo mën di taper parce que da ngay commettre ay erreurs yu bari lool aussi def ñuy indil yeneen jafe-jafe. moo tax noppaleeku ji lu am solo la bi yoon c'est vrai que am na ñaari machine donc c'est la première fois ñu am ñaari machine yu ñëw donc avantage la aussi cinq jours yi nga xamante ne am nañ ko yu complet loo xamante ne beneen avantage la c'est vrai que demande yi bëri na euh, buñ sañoon temps bi gën a yaatu mais aussi buñ demoon aussi bu mu am ñu des warul doon handicap dina métti kenn ku nekk maanaam ñàkk déposé bi mais nañ sant yàlla ne am nañ un grand pour pourcentage bu déposé ak nu mën a demee rek même buñ nekkoon fii di déposé sax ba suba mën na am ñu am ñoo xamante ne des na aussi c'est-à-dire nit ki maanaam booy def dara rek euh, amal engagement boo xam ne day lay won ne yow bëgg nga ñëpp dugg ci biir bëgg nga ñëpp xëcc waaye boo demee ba am ne xam ne maanaam temps bi ak situation fii la la yemloo nga yem foofu te xam ne bés dina ñëw pour ñeneen ñi aussi ndax aussi ñun ñu bëri toog nañ lu bëri di di xaar lu yàgg di xaar ñu bëri jël nañ ay sauf-conduit dem Sénégal et cetera donc bu amee ñu des aussi c'est vrai que du leen neex mais waru leen euh, tax a mer sinon que dañoo war a am patience te xam ne ëllëg aussi yàlla mën na def ñu indilaatul ñu beneen mission boo xam ne mën na ko compléter am kenn koo xamante ne même état bi sax maanaam bu fi indi woon mission boo xam ne bu permanente la aussi foog ngay gis ñoo xamante ne am nañ jafe-jafe pour déposer et cetera donc buñ demee ba temps bi aussi mayetuñ ko rek ñu xam ne fii lañ yem xam ne l'essentiel a été fait et te xool ba xam kañ la ñuy commencé waat di regrouper waat ay yeneen nit ñoo xamante ne dinañ mat tax dinañ tax mission mën a jóge Sénégal ñëw fii kañ lay doon xamuñ ko mais c'est pas impossible donc fu ñu mën a yem rek nañ yem foofu te xam ne suñu intention moo nekkoon ñëpp dugg ci biir ndax moom la ñu waxoon nit ñi te moom la ñuy jéem a def yéen loolu ngeen di def di jéem a def ba dépasé li nga xamante ne mooy seeni capacité dégg naa ndax maa ngi doon jokkoog gars yi à tout moment mais gars yi du ñu nelaw dañuy guddee tëdd te dañuy teel a jóg donc liggéey bu doy bu métti la te xool si bu leen yaakaar ne fii rek lañ liggéey dañoo ñëw depuis des semaines di liggéey donc seen bopp aussi day daal di nekk ci situation bu doy waar te machines yi aussi ay machines lañu taxawuñu depuis bi ñu commencé ba léegi te mën nañoo am ay difficulté donc euh, fu ñu mën a yem rek ñu yem fa yàlla nañu mën a defal ñëpp mais buñ ko mënut aussi fu ñu mën a yem ñëpp xam ne yéen bi am nañ fa te liggéey mel ni mu mel ni xam ni dama am benn lu la ciy dolli mooy que ni euh, dogal wax nañ ñaan yàlla ba mission bi ñëw mais ban message ngay lancé. boo xam ni wax dëgg yàlla danañ def suñu kem kattan ba passeport yi gaaw retourné parce que mbokk yi soxla nañu ko soxla foo ko foo ko takk wees na ko yow xam nga fii attente ni mu demee ba amul papier doo mën a yónnee sa njaboot xaalis te kenn ku nekk ci xam na ni fii ci këyit ci nga mën a yónnee xaalis kon ban message ngay laaj pour mission bi gaaw dellu si incha allah taala mbokk yi kenn ku ci nekk mën a sa passeport. waaw loolu am solo la d' abord euh, li ma bëgg ngeen xam mooy ne Euh, bu ñuy def recensement yi ngir maanaam mission bi ñëw yàgg na lool gis nañ ne aussi état wu Sénégal en particulier ambassade yàggoon nay joxe ay date pour maanaam nit ci ñëw mais Argentine permettre ku woon donc peut-être lim bi matut ko woon bii ci moment boobu parce que boo xoolee eh, bu fekkee ne dépassé nañ un an ci diggante bi am na ñoo xam ne seen passeport jeexaat na ci diggante bi ndax desoon na un an wala ñi di waroon na dese ay six mois donc dafa gën a yaatal li nga xamante ne mooy quantité nit ñi waroon a soxla passeport donc euh, l'essentiel mooy euh, bu ñu defee recensement boobu ba pare euh, ba mission bi ñëw fii li ñuy ñaan mooy démarche yëpp ñi nga xamante ne ñooy professionnel li ciy liggéey mën koo def ci anam yu tranquille moo tax mën ne leen noppaleku bi def ci am solo ndax bu ñu demee ñoom dañuy toog fichier yooyu ñu defar yëpp dañ ko war a lijjante xool ko ba xam ndax tout te correct ndax dossier yëpp mat na et cetera bu fekkee ne dépôt yi ñu def fichier ñu ci laaj yëpp document yiñ ci laaj yëpp mattal nañ ko ordonné nañ ko nu mu war a ordonné ticket quittance yi nga xamante ne moom lañ ci war a fay fay nañ ko ak xaalis bi yëpp ak quittance yi ordonné nañ donc liggéey bi ci war a topp maanaam euh, après dépôt bi liggéey boobu neex donc ñooñ dinañ mën a egg concentré wu ordonné waat papier yooyu envoyé passeport yi pour maanaam ñu produire leen ñoom ñi nga xamante ñoo nekk fii loolu mooy seen liggéey après c'est-à-dire ordonné li nga xamante mooy seen liggéey yëpp xool papier yëpp ndax tout est normal bu lépp normal la ñu envoyé ñoom ñu produir buñ produire ba pare aussi eh, ay dossier la yoo xamante ne day dem à l'étranger donc euh, fa mu am euh, euh, ministère des affaires étrangères fa mu am ci part mais yaakaar nañ ne saa yu ci ministère des affaires étrangères jotee rek du yàgg ñoom ñu envoyé ko ambassade bu Sénégal bi nekk Brésil te saa ko ambassade bi jotee moom ñun immédiatement rek dañ koy jot yenn benn affaire moo taxoon passeport yooyu la yéex te loolu faw ñu souligner ko dinañ ko waxtaan ak autorités yi aussi pour ñu gën koo bàyyi xel ndax ñoom aussi xam nañ ko muy euh, ay année passée par exemple benn problème bu ñu amoon mooy ñoom dañoo defaroon passeport yi ba pare bàyyi fi xaalis ndax mënuñ ko woon yóbbu ndax situation dëkk bi te waa ji aussi da doon dem directement Sénégal donc ñun aussi ñu amoon jafe-jafe pour xaalis bi ak Brésil pour ñu defal quittance yi mu mu dem au niveau de du Sénégal problème boobu amatuñ ko ndax ñoom ñëw nañ ak seen autorité te ñooy ñooy yóbbu seen xaalis donc loolu problème boobu du am beneen problème bi nga xamante ne amoon nañ ko euh, daawaati jéeg mooy ñi nga xamante ñoo defoon dépôt yi euh, buñ koy def peut-être situation bi doyoon na waar de telle sorte que am na détails yoo xamante waroon nañ ko cee respecter peut te defuñ ko muy euh, fexe ba sélectionner wala séparer passeport yi nga xamante ne moom la ñu enregistré en Argentine ak passeport yi ñu enregistré Brésil passeport yi ñu enregistré Brésil ñu séparer ko par zone passeport yi dem Brasilia wala passeport yi dem ay Porto Alegre wala ay São Paulo donc loolu bu fekkee ne ordonné ko ci ay fichier am liste bi seppi ko depuis le Sénégal kaste ko benn bu nekk nga séparé ko bu eggee ci Séné ci ambassade ba seen liggéey day métti day impossible donc liggéey bu métti boobu moom la suñu ambassade amoon ca passeport yàlla jël donc ñoom dañoo tardé des mois di sélectionner pour jéem a xam passeport bu nekk fan la war a jëm donc liggéey boobu nag tey jii dinañ leen avertir ñoom xam nañ ko déjà parce que dund nañ eh, expérience bi donc dinañ leen gën a avertir pour loolu ñu séparer ko bii yoon xam ne Buenos Aires kat liste bii lañ fa defaree passeport yooyu buñ koy produire nañ ko produire à l'exception maanaam de manière séparée buñ paree ñu kaste ko def ci liste bi ne lii Buenos Aires lay jëm Brésil la même chose lii Sao Paulo lay jëm lii Rio lay jëm et cetera su ko defee ambassade bi bu ci jotee lu muy def rek mooy day génne list bi consulter ba xam passeport yi ñu annoncé yëpp ñëw na léegi mu daal di envoyé mu ñëw su ko defee rek affaire bi day gën a gaaw Euh, xam leen ne aussi suñu responsabilité daa am fu mu yem ñun ay civil lañu comme yéen ñëpp donc suñu responsabilité mooy euh, maintenir contact yi ak suñu autorité euh, di fexe pour ñoom à chaque fois ñuy yëg li nga xamante mooy suñu revendication def ko de la meilleure manière ak dal ak yar e te moom la ñuy def te dinañ ko continuer di def donc dinañ leen wax ne buñ paree rek nañ ñu jéem a dimbale passeport yi mën a gaaw a ñëw ndax aussi sénégalais bu nekk xam na ne boo nekkee à l'étranger document bi nga gën a soxla mooy sa passeport ndax moom ngay defee démarche moom ngay voyager moom ngay mooy sa identification et au delà de la résidence mooy li nga xamante ne moom mën nga njëkk soxla donc loolu nañ ci taxaw incha allah. xam naa sama dernière question ma fi laay jeexalee wàcc kàddu yi mooy nan nga gis équipe bi nga xamante ne bii ñu fi di liggéey mu nii ñi ñuy wax waa Actu Sénégal ak waa Archa ñu ngi fii mënoo xam ki Actu Sénégal la bokk mënoo xam ki Archa a bokk li ñu gis mooy communauté communauté sénégalaise moo fa dajee na gis équipe boobu ñoom ñaar seen nekkin fii ci passeport yi nga xam ne ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi mënoo xamee kii Archa la bokk mënoo xamee kii Actu la bokk waaw loolu moo waroon nekk suñu nature c'est-à-dire euh, euh, ñun ay sénégalais lañ avant tout mm-hmm. après tout aussi ay sénégalais lañ mm-hmm. donc euh, yaakaar naa ne Euh, amut dara loo xamante ne waroon nañoo taqali ci yenn situation yi maanaam nit maanaam mën nga ñàkk a bokk xalaat ak keneen ki mais waru leen a taqal parce que euh, baaxul sax ñun ñëpp ñu bokk yëm xalaat mm-hmm. maanaam kii dafa war di xalaat ni kii di xalaat ni mais am na situation yoo xam ne à chaque fois dañoo war a toog bokk suñu xalaat bokk suñu kii waxtaan corriger yenn idées yi yée nga xamante ne yu positif la ñu dajale leen mun a maanaam egg ci benn résultat bu positif mm-hmm. loolu mooy communauté kuy doxale noonu yaa ngi ci bonne voie bi ku dul doxale noonu yaa ngi ci voie bi nga xamante du bu baax bi mm-hmm. te ñu lay ñaan nga corriger ko parce que Eh, ci adduna bii ñu nekk eh, mbooloo te moo ko mos doon sax mbooloo mooy doole mais mbooloo mooy doole si nekkut ne un million de personnes mooy doole sinon que cinq personnes yu organiser wu déggoo mun a corriger seeni heureur mun a waxtaan seen biir ñoo ñoo mën un million de personnes yoo xamante ne dañoo désorganiser donc dëkk bi même bu ñuy ñëw mille sénégalais par jour buñ fiy ñëw buñ fi nekkee trois millions de sénégalais te organiser wuñu organiser bi mooy maanaam secteur yi yëpp à chaque fois ñu mën a délégué de ay nit ñu toog waxtaan ci benn mbir xool situation sénégalais yi fajandoo ko ci benn kii joxe benn message boo xamante ne bu dal la ñëpp déglu ko daal di ko topp yaakaar naa du ñu nekk ci voie bi nga xamante ne mooy voie bu baax bi donc l'essentiel mooy tey bu ñu ñëwee fii du ñu xam ne kan mooy Tidiane kan mooy Mouride. kan mooy ak des sénégalais kan mooy arsa parce que amul njëriñ moo tax tey boo gisee bu ñuy defar ticket yi nii defuñ ci benn kii dañoo def ne rek eh, Laye Bamba Sarr parce que sénégalais nga un point Badara parce que lan parce que Sénégal ngeen di liggéeyal parce que ay kenn ku nekk ci yéen maanaam ambassadeur suñu réew nga maanaam lii ñuy créer maanaam ay association wala kii eh, ay logo la yoo xamante seulement dañ koy dañ koy utiliser pour formaliser ay quelque kii mais bu caaxaan jeexee yooyu du du dara l' mooy maanaam sentiment sénégalais bi nga xamante ne kenn ku nekk war na koo am ak sentiment bi nga xamante ne mooy euh, réussite bi ñuy yaakaar wala bi ñuy ñaan pour sénégalais bu nekk am ko ak secteur boo mën a nekk. donc mën nañoon am fii cent cinquante organisation mais bu dara taxawee rek organisation bu nekk dafa war a mën a seppi ay nit ñëw teg. du ñooñu ñoo fa mën a mais c'est que représentant dafa baax donc ñooñu à chaque fois dañoo war a am intention toog waxtaan ndax kii dina am idée bu baax kee am idée boo xamante ne peut-être buñ ko corriger wala buñ ko changer tuuti maanaam mu gën a baax maanaam ñu boole ko buñ boolee idée yu baax yi yëpp nañ am réussite te mooy lii ñuy def donc lii exemple la boo xamante ne day wone ne ñun mën nañoo def lu rëy ci biir dëkk bi mais gannaaw bu ñuy organiser wu li ma wax sànq mooy ne organisation boobu ça ne demande pas cent mille personnes nekkut ne vingt mille personnes ñoo koy de lii six personnes dix personnes yi nekkoon fii li ñu def nii mën nañoo def lu raw ci yeneen étape donc mbir mi nii la organiser wu kan ku nekk jàpp ci dara eh, joxe sa engagement respecté ko foo demee bu am problème keneen ki supplémentaire la loolu mooy àdduna te yàlla ñu mën di continuer di liggéeyee nii ndax moo ñu mën a may réussir ci lépp li nga xamante ne ñun teg nañ mooy suñu intention te na ñëpp accompagner ci loolu ndax xam na ne ñun ñëpp ay frère lañ te kenn ku nekk la ngay ñaan ci communauté bi mooy mu am réussite kenn ku nekk la nga bëgg mooy communauté bi am union e te lépp lu ñu taxaw maanaam euh, def ko en face pour maanaam xeex ko ñu mën cee am ndam donc bu fekkee ne ñun ñëpp objectif bi benn la yaakaar naa ne yoon yi warut maanaam wutee lu bëri donc war nañoo war a mën a booloo ci jàmm ak salaam waxtaan ci suñu biir eh, jàppale suñu rakk yi suñu papa yi suñu mag yi nga xamante ne ñoo fi nekk ak suñu yaay yi te ñu bëri bokkuñu capacité ndax aussi loolu nga baal ma ci détail bi mais boo gisee des fois nit ñi di son du yettaay du du volonté kese sinon ko da ngay comprendre ne la ma yàlla may ci situation bi ma yàlla may mënoon na koo may keneen mais peut-être fee la ko yemale donc lu tuuti loolu yàlla may kii donc war na ci seppi tuuti yëkkati ci tuuti maanaam daal di koy collaborer à chaque fois donc intention yooyu nga xamante ne kenn ku nekk war nga koo am di ko boole ak intention keneen que pour maanaam ngeen former doole bu mën a dimbale ña nga xamante ne yàlla mayu leen capacité boobu yaakaar naa ne ñun ñëpp war nañ koy sam ndax mooy yëfu julit yaakaar naa ne yéen ñi jàng wàllu religion jullit du seulement sijoot ak werde sinon ko aussi mooy la nga taneel sa morom nga mën ko coo dimbale dimbale bi du xaalis à chaque fois xam-xam la yenn sa orientation mais aussi ci jàppale ci mel nii lu am solo nag aussi mooy population bi comprendre ne sacrifice bi ngeen di def da fa dafa am lu bëri li ngeen bàyyi da ngeen a bàyyi seen liggéey da ngeen a bàyyi seen njaboot da ngeen a bàyyi seen lépp donc di ci sacrifié wu te gagné wu leen ci dara donc bala muy gën a neex aussi population bi reconnaître ko xam ko respecté leen ci ndax nit ki aussi bépp buy sacrifié ci dara da ko war a kii ndax même bu fekkee ne koo xam ne da koy fay sax am na respect boo xam ne da ko koo war a jox ndax am na benn sacrifice humain boo xam ne da koy def ngir maanaam fajal la sa soxla loolu ñu bàyyi ci xel bu baax. ñu ngi lay jaajëfal si Moussa. ñu ngi leen di jaajëfal merci beaucoup di féliciter aussi wax dëgg neex yàlla waa communication. di féliciter groupe bi yëpp macha allah sama xel daal nag kontaan naa bu baax a baax xam naa ne génnoon naa waaye bi ma génnee ba léegi gis ngeen sax sama communication bëriwut lool ndax xam naa ne eh, bàyyi woon nañ fi ay nit ñu responsable te ñu ngi doon def li nga xamante moom la ñu waroon a def eh, di jaajëfal ñëpp eh, ñi fi ñëw autorité yu Sénégal yeeg ambassade baak suñu état aussi di jaajëfal communauté bi yëpp ndax tey bi ñu tey ak ñi nga xamante ñoo ñu jàppale ci lugaar yi muy setep d'abord aussi ak fii nga xamante ne mooy centre d'orientation des migrés ak ay réfugiés yi ak yéen ñi nga xamante ni yéen a ciy jàpp et di jaajëfal bu baax a baax a baax aussi e argentin yi ak seen gouvernement ak lépp rek ndax lii yëpp maanaam ay question diplomatique ak administrative la donc maanaam am na solo ñuy am ay situation yu mel nii di leen yee nag ci ne ñu gën a moytu te fonk document yi e ndax aussi document moom fonk dëkk ce am solo ndax day tax ëlëg maanaam eh, peut-être ñu bëri ñu perte seen passeport wala duñ leen kii donc ñu fonk document yi bu baax a baax te respecté ko ndax aussi loolu dinañ ñu faciliter lu bëri bëri respecté démarche yi question yi ñuy def euh, maanaam affaire recensement yi ñuy def fii par exemple wala ñuy koy def ci encuesta eh, yi ñuy def ku ko mën a def nga def ko ndax lu am solo la Euh, ndax loolu mooy tax aussi ñaanaam ñuy jàngat suñu situation de santé suñu problème aussi pour ëllëg leneen lu ñu soxla aussi ñoom ñu am facilité pour jàppale ñu ci donc yooyu yëpp de leen ci bàyyi xel di dem ci réunion yi di gestu euh, di jàng ndax euh, lépp jàng àdduna jàng la jàng la donc maa leen di féliciter di leen remercier di leen baalu wax bu baax a baax